damay revenir un rek si ki nga xam ne ni mooy Aïda Mbodj du wax ne que moom xam nañ taxawaayam si Abdoulaye Diouf Sarr parce que boo seetloo yéen ñi nga xam ne ay journalistes yi ngeen wala ñi nga xam ne ni ay acteurs lañ di suivre médias yi chaque sortie de Aïda Mbodj si Abdoulaye Diouf Sarr dafay nekk sorti boo xam ne euh, dafay metti lool maanaam lu wàllu critiquer la wàllu xasta wàllu kii lool li ko waral mooy euh, dans le passé xam ngeen ne Abdoulaye Diouf Sarr moo nekkoon ministre en charge des collectivités locale ba nga xam ne nii euh, génn na loi ne kenn dootu cumulati mandat maire ak président président conseil départemental te boobaay Aïda Mbodj dafa nekkoon maire bu Bambey nekk président conseil départemental donc Abdoulaye Diouf Sall bi mu defee vraiment faire appliquer la loi ba nga xam ne Aïda Mbodj dafa par benn bi te loolu loi moo ko joxe mooy donc foog nga bàyyi benn bi mu bàyyi président conseil départemental boobu ba léegi Aïda Mbodj donc loolu la jogtee si Abdoulaye Diouf Sall mais ku xam le ministre Abdoulaye Diouf Sarr xam ne euh, c' est un homme euh, c' est un ministre compétent très très compétent te bépp disposition boo xam ne war nañ ko jël rek si wàllu feebar bi vraiment euh, monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr jël na ko may wax ne affaire bi tey soixante-quatorze pays si àdduna feebar bi am na fa ni mu ñëw ni mu def ba dugg France def ba dugg États-Unis def ba dugg pays yi nga xam ne nii leen naan les pays du g mooy ñi gën a développé si wàllu àdduna yépp dugg na fa. dispositif bi nga xam ne nii moo war ñu war ko jël si wàllu aéroport vraiment jël nañ ko ba nga xam ne feebar bi nit ki buy dugg see am na foo xam ne nii dañuy wax ne feebar bi dafay def quatorze jours si sa yaram balaa muy manifester ce qui fait que si quatorze jours yooyu mën nga ko am mais boo ñëwee sa température la ñuy xool donc li nga xam ne ni ay vidéo thermique la yoo xam ne. moo nekk fële si euh, aéroport boo ñëwee ñu xool si température bu fekkee ne dafa am fu mu yegg ñu xool li war si yow wàllu isolement wàllu taxawula si wàllu kii vraiment loolu moo tax moo tax vraiment ka nga xam ne nii yàlla def na wala ñi nga xam ne bañ koy am ba ñuy dugg Sénégal aussi loolu kiwul woon donc peut-être foofu la euh, Aïda boo juume ba muy wax ma di ko wax ne fi nga xam ne nii foofu lañ toll si wàllu Sénégal mooy ñëpp ñoo xam ne nii ay acteurs lañ dañuy teg wàllu politique fële teg wàllu waaso fële teg wàllu problème personnel fële ñu taxaw ñëpp Sénégal ñu xam ne c'est une situation boo xam ne Sénégal yëpp ñoo war a taxaw pour xeex li nga xam ne ni moom la ñu yàlla nattoo donc foofu lañ koy invité pour que mu ñëw Eva Marie Coll effectivement ba ébola ñëwee def na si li nga xam ne moo ko war et c'est le même dispositif c'est les mêmes personnes ñoo fi nekk donc peut-être li nga xam ne moo changé mooy ministère bi ka nga xam ne moo ko jiitee boo xoolee en matière de gestion des épidémies et gestion de la crise dafa am benn kii boo xam ne c'est conventionnel c'est édicté par euh, l'OMS donc même affaire bi moom lañ topp Abdoulaye Diouf Sarr moo ngi si terrain bi bi mbir mi amee ba léegi mu ngi taxaw mu ngi sensibiliser mu ngi dox ak ñi nga xam ne ni ñooy ministère la santé mooy les acteurs que ce soit sur le plan administratif mais aussi sur le plan médical ba lépp loo xam ne ni war na si wàllu sensibiliser si wàllu taxaw si wàllu dispositif vraiment jël ko ba feebar bi li nga xam ne ni moom lañ am muy 4 cas yi mu yem fii si Sénégal mais mu bañ a continuer taxawaay bu mat sëkk la Ablaye monsieur le ministre Ablaye Diouf Sarr taxawee taxawaay bu efficace moom la taxawee si li nga xam ne nii mooy coronavirus bi avant ah bi nga xam ne nii yàlla def na Sénégal am ko te moom lay continuer si taxawaay boobu noonu di ñaan yàlla mi nga xam ne yàlla moom moo man moom la dara teewul mu yam fi ba Sénégal génn si ak ndam waaye aussi àddina bi yëpp génn si ak ndam ndax problème bi c'est un problème mondial tant que jeexul si àdduna kenn mënul wax ne dina jeex sa réew donc loolu li si ëpp solo yëpp mooy si sensibiliser nit ñi taxawaay biñ si am ba fexe ba képp koo xam ne ni am nga feebar bi ñu jàppale la taxawu la faj la ba nga wér mën a dellu si sa njaboot te taxawaay boobu wax dëgg yàlla monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ak ses services ak ñi nga xam ne ñoo yor administration si wàllu santé docteurs yi universitaire yi professeurs yi yépp ñu ngi si taxaw si wàll wi nga xam ne nii mooy wàllu euh, convention yi nga xam ne OMS moom la édicté taxawaay bu mat sëkk pour que feebar bi génn biir Sénégal